Bonjour. Je voudrais tout d'abord présenter les excuses du ministère de la Santé l'Action sociale parce que des informations de dernière minute ont retardé la rédaction de ce communiqué. Communiqué 69 du ministère de la Santé l'Action sociale dont je vais vous faire la lecture. Ce samedi 9 mai 2020, Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 848 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,78%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 69 cas contacts suivis par nos services. 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fass 1 cas, Parcelles Assainies 5 cas, Mbao 2 cas, Médina 2 cas et Touba cas. 32 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de l'hôpital principal. Le Sénégal vient d'enregistrer son 15e cas de décès lié au Covid-19. Il s'agit d'une femme âgée de 37 ans demeurant à Fass. Elle est décédée ce samedi 9 mai 2020 à 4 heures du au centre Couémo de l'hôpital Fann. La victime était également porteuse d'une maladie chronique. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille attristée. À ce jour donc, 1634 cas ont été déclarés positifs dont 643 guéris, 15 décédés, 1 évacué et donc 975 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au des mesures de prévention collective et ci wolof ma dooree ko jéggalu bi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale moo ngi koy jébal jébal askan wi ndax li tardeel suñu communiqué bi mooy ay information yu ñu jot laata ñuy tëj bind mi <coughs> tey samedi 9 mai 2020 ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj lim ci juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti test yi ñu def juróom-ñett fukk ak ñett ñoo ci positif maanaam juróom-benn fukk ak juróom-ñeent cas contact fukk ak ñeenti cas communautaire benn ci fas juróom ci Parcelles Assainies ñaar ci Mbao ñaar ci Médina ñeent ci Touba fanweer ak ñaar ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu ci bësu tey juróom ñaari cas yu sonn ñu ngi ci suñu service réanimation yi principal ak hôpital Fann ñeneen ñi des hôpital seen wërgu yaram mu ngi am tan tey Sénégal am na fukk ak juróom benneeli kaawu malade boo xam ne dafa ñàkk bakkanam malade bu amoon Covid 19 benn jigéen la bu amoon 37 ans dëkkoon ci fas yàlla nangu na bakkanam tey samedi. ci fajar bi 4 heures du matin jotee ci centre Kouemo bu hôpital Fann ki nga xam ne nag yàlla dafa nangu bakkanam dafa yoroon benn maladie chronique ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi koy jaalee njabootam ci bésu tey dalee ko ci cas njëkk ba Sénégal wàññi na junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñeenti cas wër nañu ci fukk yàlla nangu na seen bakken kenn ki ñu delloo ko ci dëkk bi mu nekk jóge woon juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom des ci suñu hôpitaux yi ñu leen di toppatoo. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu dolli di teg digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm